Ferro del ba tey maak Amazone yi maa ngi ci ñoom parce li ma gis c'est inattendu xaaruma ko woon ci dernier jour bi ci ci last day bi lii xaaruma ko woon ci laste day bi lii xaaruma ko woon li surprise la lii daf ma surprendre lii dafa rafet franchement lii dafa rafet mais Amazone yi lii lan moo leen ko inspiré. bëgg xalifa rek yóbbu ko pale. ngeen bàyyi ba last day bi dernier jour bi def lii lan moo ko waral dëggantaan. defee génn Khalifa couleur l'islam la woote la paix sëñ Babacar si ko duppee kon moom la rek lay def Khalifa mooy mooy Sénégal sëñ Babacar si ko duppee kon moom couleur l'islam rek lay def la paix bëgg Sénégal dem ci kanam rek voté lal Khalifa Ababacar Sall Sall Babacar waaw nee nañ Khalifa dafa bëgg lu weex moo tax te ñoom xalifa rek lañuy ñuy topp donc lu xalifa. c'est bon. waaw comme niñ ko déggee rek Amazone yi nee nañ ñoom xalifa Ababacar Sall rek la ñuy topp moo tax bu xalifa solee lu weex dañuy sol lu weex ànd ak moom kon donc rafetlu nañu gis-gis boobu. nee naa nit ki boo ko bëggee da koy topp. waaw ba tey ñi ngi fi nga xamante ni mooy euh, euh, euh, Tëngéej ñu gën ko xam ci Rufisque di comme ni ma leen ko waxee sànq Tëngéej ville la boo xamante ni ville bu historique la lu ne xew na fi ci politique ndaanaan bu ne génn na fi waaye nag tey ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Omar dafa dalal ki nga xamante ni mooy le président xalifa Ababacar Sall ki nga xamante ni mooy njiitu coalition xalifa président 2024. fii ci Tëngéej fii ci Rufisque donc di wax ni rek euh, tey la aljuma samdi waaye dimanche incha allahu rabi mooy 24 mars ci la ñuy voté ci la ñuy tànn kan moo war a doon. Euh, Euh, njiitum réewum Sénégal di juróomeelu euh, président maanaam cinquième président mais nag bi ñu toppee caravane bi boobu ba léegi lenn rek la ñuy dégg ci côté ñi nga xamante ni mooy xalifiste yi mooy Khalifa Sall cinquième président muy yaakaar bu ñu am ci moom muy yéene it bu ñu am ci moom di ko topp boobu ba léegi. Euh, presque mën nañ ni def nañu onze raisons ak moom euh, fépp fu ñu dem rek dangay gis militant am yi génn da ngay gis soppeem yi génn da ngay gis ñi nga xamante ni dañ koo bëgg ñu génn seen kër yi di xamal ni carrément ñoom dañu pare pour jàppale ki nga xamante ni mooy le président xalifa Ababacar Sall donc nag loolu yéene la loolu nag bëgg-bëgg la loolu ndébét la Euh, incha allahu rabbi donc léegi dimanche bu soobee yàlla lépp dina leer ñi nga xamante ni ñooy topp le président xalifa Khalifa Ababacar Sall wone nañ seen bopp boobu ba léegi xale yee ngi nii génn nañ cour waaye ñi ngi tàllal seen loxo naan ko yaay sunu espoir yaay sunu yaakaar yow rek yaa ngi ci mën a génnee donc chaque jour da ngay gis ay nit di wane seen yëg-yëg jour da ngay gis nit ñi di wane seen yëg-yëg da ngay gis nit ñi di wane seen mbégte xoola xale yi ni ñuy tàllalee Khalifa euh, président Khalifa Sall président. xoolal ñi nga xamante ne ñi ngi ci wetu oto particulier yi xoolal professeurs yi ñi ngi génn ci tali bi taxaw ci territoire bi nan xalifa président 2024 donc muy yéene muy mbégte muy li nga xamante ni seen yéene la ci li ki nga xamante ni mooy le président xalifa Ababacar Sall waaye nag affaire yi yàggatul tey incha allahu rabbi lépp yam fi ñu noppalu suba samedi dimanche incha allahu rabi ñu dem ci bi nga xamante ne mooy urne yi daal di voté di fàttali sénégalais yëpp na dem ñëpp dem jëri seen carte daal di choisir daal def le bon choix nee naa leen nag président maanaam njiitum réew. du loo xamante ni dañ koy bay bayal boo koy fal da nga koy xool ci ay qualité am da koy xool ci maturité am da nga koy xool ci ay engagement waaye da nga koy xool ci ay responsabilité am ak li mu capable xool ko ci yar xool ko ci teggin xool ko ci bëgg askanam xool ko ci jege askanam waaye xool ko tamit ci nangu liggéey ak mënal liggéey parce que loolu lépp ay qualité yoo xamante ni dañ koy xoolee ci njiitum réew nee naa la bul jël sa carte jaay ko bul jël sa carte ko un bon patriote un bon euh, day dem voter voté ci choix choix bi nga xamante ni moo dal ci xelam maanaam ci ki nga xamante ni am na yaakaar su ko falee dina liggéey dina liggéey réew mi du ko liggéeyal moom kese waaye dina liggéeyal réew mi maanaam nation bi yëpp ciy gis seen bopp donc loolu ñuy sentir fii waa Tëngéej waa Tëngéej yi ngi génn naan ko président xalifa yaay sunu espoir Khalifa yow yaay yaakaar bi xalifa yaay cinquième président mais incha allahu rabbi dimanche lépp dina leer bu soobee yàlla incha allahu rabbi Monsieur Victor Omar Cissé le député maire de la ville de Rufisque te taxaw si ginnaaw nag mooy le maire du nord le jeune maire le jeune maire courageux monsieur Assane Kassé ñi nag teew fii en daxam ñi nga xamante ne maanaam c'est l'espoir de tout un peuple le président Khalifa Ababacar Sall ci du jàmm daani nii loolu doon débat réew ñu koy teg si teg si loxo wóor kii dafa pare kii day falu tey ku yàlla tey loolu tamit dina ci yaakaar parce que dañuy leen saw xol yi tabaxaat nit ñi tabaxaat jikko yi waaye xol yi mu def yéen gis loolu ci gis moom képp ku sa jikko weex ku sa jikko ba te kuy fëkk ndeysaan waa Tëngéej génn nañ waa Tëngéej génn nañ dalal ki ak toute la grande coalition Khalifa président garaaw mais da nga nelaw. gis nga gis nga xale yi ñi nga xamante ne ñooy amazone yi ñu jëlee spécimen yi tàllal seen loxo wane numéro 5 ne numéro 5 ne cinquième président Khalifa Ababacar Sall donc lii dal na xel lii liggéey la.